kan moo nekk entrepreneur bi kan la ñu war a sanctionner dans cette affaire la c'est à la justice de faire son travail mm-hmm. allez maître yow li li waa HLM Mariste di justice daal moom moo yomb daal lu ñëw rek moom la mm-hmm. te bu leen neexee kat ñu ne justice amul Sénégal lu neex Macky Sall mu la ñu àtte mm-hmm. fu jëpp Sénégal yi nañ nañ xam li ñu bëgg ñoom ñii ñoom Pape Djibril ñoo fi taxaw naan justice bi ba féete boor ñoom ñëpp dañoo suivre fii ay débat. <laughs> ñu attaque ñu attaque justice bi mais bu ñu demee ba ba ñu ne justice bi ne tranché. Hmm. kon kay nañ may jàmm justice. allez papis mais pare gu ma. Ah, mais mais léegi nag léegi nag gaaw day gaaw dama <laughs> uh-huh. xam ne li scandale la. waaw ah. ndax quand même investir. am sa kër. oui yeewu ñu ne la génnal. ba pare ñoo ko ne beneen kër. Mm-hmm. am nañu luyee luyee ji feneen. ba ba am na ku ma wane ma ancien international la woon de basket. dañ ko génne fi mu luyee woon. ndax amatul lu mu fayee te mu mujj da doon war a daanu ci kawam mu génn. oui mais li métti li la ci président wax. Mhm. rapidement nag. oui ñu situé les responsabilités. ki yoroon milliards yi yore marché bi ñu jàpp ko tëj ci kaso bi. allez ba pare indemniser nit ñi. Ah, Papis Diaw jox leen ay kër ba ñu tabaxal leen. le temps delloowaat leen ci way allez Papis Diaw. waaw pour rappeler que ne dafa nekk dafa bokk ci cas yu standard rek lii du yàgg la affaire Oumar Sy. oui dafa yàgg fait pour man lu réglé woon na bu yàgg. réglé woon Sénégal c'est ça quoi ça fonctionne comme ça da nga ñu ñu génne loo xam ne ça existé depuis vingt ans. Mm-hmm. leneen li moom mooy ci texte bi xeeb euh, sa noos. il dit que c'est le plus grand scandale du Sénégal. Mm-hmm. na quelqu'un qui est dans dans l'eau aujourd'hui parce que c'est ça le plus. on comprend c'est un cri du cœur Bouba euh, des fois aussi benn instant aussi defe naa répétition lay nekk su ñu la laajee sa sa sa sa xalaat ci benn affaire finalement je me rends que dafa mel ni même chose mooy revenir xam nga donc ma wax li ma daan wax rek. <laughs> lan nga daan wax. mooy la ma daan wax. <laughs> mais man la non non mooy cest parce que en fait à la limite mën nga ma xool di xam li ma nar a wax ci lii. <laughs> mooy li Pape Diouf wax. moom la rek wax ko la ñu wax quoi. mooy que finalement. voilà da kii rek. te répète rek. romb na bu yàgg fii am nga entrepreneur am bureau d'étude am bureau de contrôle. Mhm. di am. Mhm. ça veut tout dire. alors kilifa gi nekkoon ci protection civile xam naa dina am lu mu ci wax. problème bi c'est ça lii. construction. benn processus. donc il y appel d'offres am na benn architecte bu ko il y a des bureaux d'études ay différents lots. oui il y a un bureau de contrôle. oui ak ay assurance donc ça veut dire quelque part le bureau de contrôle n'a pas fait son travail deful liggéeyam deful liggéeyam. parce que c'est le bureau de contrôle du départ à la fin. ça veut dire ils ont réceptionné. ça veut dire quand ils ont réceptionné ça veut dire que c'est conforme ils ont signé. oui donc ça veut dire que c'est facile situer les responsabilités. alors euh, El Hadj Malick lii waa HLM Maristes di dundee noo ko gisee. waaw ñun dañuy jàpp ne rek. li yëpp mooy peut-être politique suñu politique gu habitat la ñu war a xoolaat te soo comparé SICAP ak HLM jamono kër yi ñu daan defar ci jamono yu yàgg ya boo demee ba léegi c'est en très bon état mais faut le dire c'est l'état même qui a tué ces deux grandes sociétés euh, nationales avant la d'état du état bu Macky Sall de ak bu Ablaye Wade avant la je parle d'état de toute façon yow avant après yaa ngi woon ci nguur yëpp fu ne nga ñam. donc ce que je veux dire mooy. ce que je veux dire mooy privé. yow jaay privé. sàcc suuf ak jaay suuf donc l'état doit renforcer ces deux sociétés là pour benn accès euh, accès à l'habitat nekk lu yomb. moo gën di favoriser ay privé ñiy tabax ay su ay ay ay ay kër jox ay marocains yi fii jox turcs yi fii ñi tabax après di ko jaaye a des prix yoo xamante ne ni Sénégal bi am ci accès politique de l'habitat bi ñu gis-gis bi ci topp euh, beneen gis-gis